incha allah daal di jàll ci ñu war a nga diggante tey ji ak euh, suba xam ngeen tey mooy euh, fukki fan euh, ñaar fukki fan kon fatul waaye suba day fat suba la ñaar fukki fan ak benn bu dee tey ci bisub alxamis bi fattul kon dañ ci mën a daloo rafet na ci daloo lool rafet na it ci lewiku buñ yeggee ci ginnaaw tàkkusaan buñ julee tàkkusaan ba noppi nga dagg wee yi nga xam ne si moo nekk ci yow euh, te bañ koo daggee sa gémmiñ nag hmm, euh, ginnaaw tàkkusaan euh, su dee suba nag moom day fat hmm, àjjuma la baaw ko baaxoo nag daaw ko baaxoo wax dëgg yàlla waaye suba ñaar fan yeeg benn moo tax kon des ci wattandiku tukki ak fasub sëy ak yeggale ko ci xarafal gone ak watu ak daloo ak sanc yooyu yëpp dañu koy wattandiku ci bisub suba bi ndax ñaar fukki fan yi ak benn hmm, ñaar fukki fan yi ak benn bu dee waxtuy julli yi ci Touba ak li ko wër suba si euh, dafay nekk ci 5 vingt 28 tisbaar gi nekk ci 13 heures 37 tàkkusaan gi nekk ci 16 heures 37 timis gi day nekk ci 19 heures 39 euh, gée gi day nekk ci 20 heures 50 maanaam 8 heures bu tegalee juróom fukki minute euh, kon 5 heures 28 13 heures 37 16 heures 37 19 heures 39 ak 20 heures 50 lii nag Touba la soxal ak li ko wër ci boo ko daandee ci ñaar fukki kilomètre ak juróom-ñaar lu ko mooy dangay xool fa nga ne waxtu yi ñuy julli nga ànd ci ak ñoom moo gën te bañ a tolloole nu daal di ñëw ci li mat a xam laata ñuy dugg ci xasida bés bi li mat xam ci téere sëriñ Souhaïbou bi sëriñ bi doon nu dimbali rek ci lu nuy euh, jàppandalal ak gudd fan ak wéruk yaram gudd fan ak wéruk yaram démb ubbi na buntub euh, docteur bi nga xam ne da doon dénk ab do doon dénk doomam ab docteur la ca docteur yu njëkk ya noonu la ko waxee ca docteur yu njëkk ya boo xam ne da doon dénk doomam ba mu koy dénk nag daf ko ne yii ma lay wax de boo sàmmoontee ak moom suñ borom mën na laa defal ak wér mën na laa defal gudd fan mën naa fi mën na laa defal ba doo feebar mën na laa defal gudd fan bokkoon na ca nekkoon mu ne ko bu lekk mukk te li nga lekkoon reesut lekk te li nga lekkoon reesut waaw waaye di ñoqale rek di tegale rek di tegale rek di tegale waaw waaye ñoo xam ne sii bu ñu kàmbalee tegale ci ngoon gi bala noo bàyyi rek gée daa jot bu ko defee nag guddi gi léeg-léeg mu yee leen euh, nee na ko woon bul dox ba sonn waaw dox bay xëxët waaw di dox ba sonn nee na ko it bul denc jigéen ju màggat jigéen ju màggat bu ko denc waaw euh, te ciy dolli tey ne ko. Hmm? waaw xale. xale mu ne ko bul denc jigéen ju màggat waaw kay Euh, nee na ko woon it bul baril jaxasoog jigéen waaw ah, loolu it bokk na ci ndénkaan yi nga xam ne jox na ko jox na ko ko bari jaxasoog jigéen waaw bu dee sa soxna nga di ko dóor a jël wala même boo ko dooru a jël ngay jaxasoo lu baree baree bari loolu baaxut waaw baaxut day yàq ak wér-gu-yaram baaxul ci ku jigéen gi baaxul sax ci ku ci ku góor gi nag ci la rawe nee na mu tegal ko ci ne ko te booy jaxasoog jigéen yi itam nee na bul xiif ba mu ëpp te bul reggit ba mu ëpp waaw ñaari seytaane moom foofu lay ñëwee boo reggee ba mu ëpp waaw sa xel moom ñaar rek a ci nekk nelaw ak jaxasoo moo tax mu ne ko bul regg ba mu ëpp waaye it bul xiif ba mu ëpp dem ba xoos xiif fu mu loo lekk rek nga tal euh, ngay ngay ngay jaxasoo nee na ko loolu baaxul nee na sëriñ bi fi ñuy jeexale euh, mu ne ko bul naan ndox mu sedd ci gannaaw jaxasoo maanaam teg sa butéelu ndox mu sedd wala sa glacière sa wet ànd ak sa soxna ba noppi yootu pot bi xel ba mu fees nga naan ba man mu ne ko loolu baaxut jaxasoo ba pare naan ndox mu sedd baaxut euh, bu ci mujj rek nee na ko bul naan ndox mu sedd guddi am na ñoo xam ne dañoo tàmm ndaanu guddi ndax xëy na dañoo am tàngoor wala yu mel noonu waaye nag bu mu doon ndox mu sedd boo ko mun mënta ñàkk. sëñ moom nee na la woon am na feneen fu mu ko waxee nee na la woon euh, naan naanub guddi baaxul waaw naanub guddi daa bokk ci joxe ay feebar ay wérati ñoo xam ne dañ koo tàmm ñi nga xam mënuñu koo ñàkk ndax dañoo amee feebar wala ñoo xam dañoo dem ba nekk mag seen yaram day soxla ndox